gars yi ñëw ci Jomaay ak. ñi xelu euh, xelu nga ko tuddee. ah loolu laa leen waxoon ci début ba de xelu ñëw. wala xelu mbaa xelu ñëw. mais valu facteur aliment bi mais gars yi itam nee nañ benn grosse pointure fekk seegu leen de kenn ku am mbooloo carrément carrément moom. ñëw affaire grosse yi amuñ mbooloo. Hmm. joxal imaam. ay ca imaam. waaw man lii euh, dama koy rafetlu. donte am na ñoo xam ne seen ñëw yéex na. ak génn Ousmane Sonko it waxoo ci. waaw maanaam ñi ñëw di dab si caravane bi di bokk ci coalition bi. Mhm. loolu lu may rafetlu la. donte am na ñoo xam ne seenu ñëw yéex na. gis nga fi ñu toll nii histoire mooy bindaat boppam ci Sénégal. Mhm. Euh, keroog bi ma déggee ne euh, docteur Abdourahmane ñëw na. Mhm. mbégte la ci man. parce que dama jàpp ne Abdourahmane xam-xam boroom xam bu toll noonu. sëñ bay woote de. Mhm. waaw waaw waaw. jëlal sëñ Abdou wala doo ko dugal ci direct bi. <laughs> Ah, <laughs> dañuy ndogu ji. waroon nga ñu ko ñaanal rek dugal ko ne ko sëñ bi ñu saafoonteeg moom ñun tamit. <laughs> sëñ bi ne ko 313 ñoo koy nuyu en direct. ah ñu ngi nii di noppi de. waaw kii ñu fi téye nee na maa ne. ah ñun kay ñu ngi bëgg a kii waaye vidéo moo ñu téye wax ko ko xaaral jox la ko. <laughs> paas bi. ne ko bi ñëpp a koy nuyu di ko ziar. ñu téye rek. nekkul bàyyi waaw paas sëñ bi tuuti ma barkeelu ci sëñ bi. waaw nee na ma jox <laughs> ne ko Sénégal a ngi koy ziar. <laughs> Sénégal yëpp a ngi lay ziar. yaa ne ko yaa def direct ne ko nit ñaa ngi lay déglu direct. nit ñaa lay déglu ah. ànd waaw damay dogu si. <laughs> waaw maa ngi ànd ak ñoom ñoo dogu si. <laughs> émission bi jeex na. <laughs> waaye ku ragal koor la. kon baax na léegi léegi incha allah. mais foofu ñuy foofu ñuy tëjee daal mooy mm-hmm. euh, kii Cheikh Abdou. Mm-hmm. yal nañu ko yàlla fayal daal sàmmal ñu ko euh, maanaam ku mel ni docteur Abdourahmane Diouf borom xam-xam bu toll noonu bu gisee li xew parce que am na loo xam ne ku ko mëntu liir amoo xam-xam tey fi ñu toll ñëpp war a fàtte seen bopp fàtte seen daraja fàtte nii laa toll parce que réew mbooloo ñoo koy tabax benn nit du tabax dégg nga te Abdourahmane tey li mu yor ci xam-xam ndawi Pastef yi il faut mu liggéey ak ñoom. Mhm. sotti ko ci ñoom def ko mhm. ci ñoom ñu mhm. bokk tabax. waaw Sénégal ëllëg kenn mënu ko tabax te Abdourahmane bokku ci. Uh-huh. nit ñi dañu soxla xam-xamam soxla uh-huh. njubam. Uh-huh. moo tax ñëw bi mu ñëw. alhamdulilah ñun dañ ciy sant yàlla. dégg naa tamit Babacar euh, monsieur le maire. professeur ñëw na. donc maître ne ne ngeen doon bañ parce que def nañ ci waay yi nu mu tuddati Moussa directeur u Dem Dikk bi nu mu tuddati. Moussa Diop Moussa Diop euh, teg nañu Bassirou Diomaye teg. Euh, Moussa Diop teg Habib Sy teg Mimi Touré ne ñem ñañ doon ŋàññ naan nitu système bi ñoom ngeen ñoo àndal ça veut dire que la ngeen doon wax gëmu leen ko. loolu ñàkk xam-xam la. xam nga dafa am lu ñuy tuddee ci at tawba as siyaasiya ah. tuub ci wàllu politique dafa am. Mhm. nekkul système bi ku ci mos a nekk rek da bon. Mhm. am na ñu nekk ci biir système te bonuñu sàccuñu te Mimi Touré ak lu waay mën a wax ni ñëpp dañ naan la ko jub la. Mhm. ci alal kenn mënu koo topp benn dërëm bu sàcc. léegi kooku xëy bàyyi ñii ni ñëw fii ni da nga koy seetaan ak xam-xam bi mu bi mu yor mm. te mu bëgg liggéeyal réewam mm. non bu fekkoon si jikko système bi la indiwaale mm. bu boobaa dañ koy rejeter na ko amoon fi place mais dafa ñëw yor jikko yi ñu yor changement mm-hmm. am lu mu niroole ñoom loolu la ñuy boole pour tabax réew mm-hmm. ki gën a jàmbaar ci lislaam mooy mm-hmm. mooy ñu koy ñu koy tuddee Xaalid ibnul Walid wala ci jàmbaari lislaam bi nga xam ne dem na téeméeri xare mustu am defet waaw ba muy jàkkaarloog lislaam ak bi mu duggee ci lislaam de de dégg déglu li ma la wax sax dafa nekk yéeféer mhm. yonent bi wax frère bu jógee Madina di dem mag ne ko man de Xaalid jaaxal na ma xelam mu réy mi yëpp lu ko tey dugg tuub ci lislaam ba léegi jaaxal na ma ak ni mu intelligent yi waaw parce que l'islam ku mm-hmm. Mm-hmm. intelligence boo ko jëfandikoo da ngay tuub mm-hmm. bien sûr bi ne intelligence bi Xaalid yor ba léegi tuubul jaaxal na ma te moom sax xanaa xamul ne moom moom leader la bu tuuboon dañ koy ci njiit yi lay bokk ah. waaw message boobu bi ko frère bi waxee Xaalid xas na ko waaw loolu lay xas comprendre nga yow man dama daan wax ne bëri na ñu nekk ci biir APR bokkuñu APR ci mm-hmm. Pastef lañ bokk. kon ça veut pas que ne ñu fekk si rek ci ginnaaw nga war a féete. déedéet. mën nga jógee fële ñëw. Ah, am cër bu am gënoon te réer ga kay. waaw waaw mais ki nga xam ne. <laughs> ki nga xam ne moo leen gën bu ngeen ki nga xam ne moom muy muy APR. Mm-hmm. mostu rey nit. Mm-hmm. mostu toroxal nit. mostu sàcc alal. Mm. xëy bés ne man yéen doyu leen ma waa Pastef ñoo ma doy. am na fa place. Mm. donc yooyu système maanaam mu système. nit ñi dañ koy wax. doxalin la di ci namm di ci namm ak caay-caay. Mm. caay-caay gi rek pour gàllankoor la ak jaxase la ak nit ñi. Mm. nit mën naa nekk ci système sax di di yàq. di def loo xam ne jaaduwul. yor melokaan boo xam ne baaxul xëytu. Mamadou Dia mii nga xam ne dañ koy jël référence. Mm-hmm. tàmbalik dundam ci politique ak mujjam dundam ci politique du benn. Mm. am na jamono mook Senghor réeré wuñ ci dara. Mhm. ñu bëgg ko lool indépendance kay ñoom ñaar ñëpp daw bokk loo xam ne seen responsabilité la engagé. Mhm. mais bi bi jaa jëlee yoonu boppam xam ne lii mu bëgg bokkul ak li Senghor bëgg. Mhm. Euh, la xew-xew. parce que gars yi fa fa parfois ñu ŋàññi taxawaayu Mimi Touré yooyu noonu. naan peut-être jaal bi ñu ko darajaal te mu am ñu mu fekk ci. Euh, coalition beeg yooyu lan la def APR loo ko dama ni dafa dafa am koo xam ne yàlla moo ko jox daraja. xoolal fu mën a nekk. ci kanam lay doon yàlla moo bindee noonu ay nit tey loolu mënuñu ko bañ ci lislaam déggoo li ma la wax Xaalid ibnul Walid gis nga bi mu tuubee quatre mois après la jiite armée l'islam bi yëpp hmm. keroo la ko sonent bi tuddee sayfun min suyufillah hmm. te fekk na fa Ababacar hmm. Omar Ousmane Ali ñu naan kii nii di xam ne yéefar laa la bëgg a laa la bëgg a may dafa am sama benn xarit bu baax bu nekk mais ça mun nga ba imaam daaneel ma. léegi jeexal nañu parce que ça da nga kii pare nga. la seede la nga daanaale seen campagne bi rek. waaw ma ne nga daanaale seen campagne bi imaam bàyyil balaa kii bi di jeex ngay ngay quitté noonu plateau bi yow tamit. waaw d'accord man kay ndogu ji rek moo ma kii parce que yéex a ndogu baaxul quoi du sunna. Eh, dafa bokk ci euh, sunna ngay teel a dog. voilà dafa may faral di yónnee ay ndéggat. am mm-hmm. yoo xam ne su ma kii dama koy dégloo Mimi. Mm-hmm. mu ne moom Mimi li muy loolu mooy gën a def. effet na bàyyee gaa yi. national bi maanaam bàyyee leen ci comme communication national bi. du di doonte mën nay wax ak kii mais di ci wax ne discours kii bi passé sax muy akapes waxul ci anglais lu tax lii te moom loolu moo doon fooram. te dafa bari ñoo xam ne dañuy bàyyi xel te loolu muy wax muy dëgg. parce que man man man avant sax muy parce que dafa dégg may faral di wax naan suñ nekkee ci ndaje souvent bu nit ñëpp bu gaa yi di bu mii mi xasee wax rek ñeneen ñiy wax. li ñuy wax dootuma dugg comme ni may duggee parce que buy wax moom. Mm, mm. dafa xaw a niroog ton. Ah. wadd ñoo xaw a niroo ton maanaam ni muy yëkkatee. ni non non non non non non non non damay bañ xut damay bañ ci ton laay wax tàmbali quoi man ci ton laay wax waxuma affaire jikko damay damay kii quoi damay damay kii moom waaw parce que moom vraiment lu mu wax duggoo ci wadd quoi dégg nga vraiment nag wadd sa wadd gi nag dëgg dëgg nag tamit ci qualité wax laay wax waxuma ci qualité jub ak nangam ak nangam su ma neexee man wadd nit mm. gënalu ko ci ci seen politique bi moom laa bëgg. loolu leneen la. mais su may wax ci Wade man ci qualité. Euh, euh, prise de parole. laay wax ak comment nan la ñuy tenir micro. xam nga ne loolu dañ koy jàng da nga gis ñoo xam ne danañ téye micro di wax mais kaw li ngay gën a dégg. buru bi te li ñuy wax mën naa gën a am solo. mais mu buy wax wala buy yëkkati ak fi muy daanele ak fi muy noyyee. loolu daf ko niroog Wade te loolu dafa baax ci nit dafay galvaniser troupe. te li ngay wax ki koy réceptionné même bu déggut sa làkk day xam ne kii lii muy wax sax dafa am njariñ foofu laa doon waxee. bisimilah te loolu dañ koy jàngalee maanaam même yow sax nga jàng ko comme da ngay jël kii te te yow yow yow noonu nga mel bu taw gee ci ànd kii wu ànd sàmm mujj koy doon wax. Mhm. ton boobu ngay waxee nit ñi dañ lay déglu. loolu don la am am nañu ko am. te xamuñu ko. mais am na ñoo xam ne bu ñu ko amut. Mhm. dañ ko war a liggéey. man ci jamono yi ci liggéey ci bu baax ci laa nekk. yaa koy liggéey. ah yow de ah, émission toog moom kese boo ko mokkalee mu. non non ba tey bokkut ak prise de parole en public. tam dafa garaaw de émission toog. non non émission non micro yi en général. dafay amul musique amul fond sonore amul dara. ba pare dafa bari suñu micro yoo xam ne tamit ñii nekk ci ndaje yi micro yi nañ koy tànn dafa micro yoo xam ne day ramasser. Mhm. pour loolu la. am micro yoo xam ne dafay jël comme téléphone li nga xam ne noonu lay seggee li ngay wax rek di wax loolu la loolu faaw gars yi bàyyi ci xel leader yi may déglu tamit nañ ci bàyyi xel parce que loolu bëri na nit ñoo xam ne loolu la leen Mimi Touré rawee foofu laa doon nañ tëj te ndogu ji. Ah, mais seen campagne beeg waxoon na ci campagne bi ba pare wax na ci ba pare Vito wax na ci ba pare. tey jii <laughs> taxawaayu Cheikh Baara. taxawaayu Baara muy élite bi foofu. Khoureychi Thiam l'international Cheikh Baara Mara Niass. Omar Bamba Diop saawolof ci biir làmmiñu daaru ak ñooñu màmpaate nekk ci di coordonné loolu dafay lu am solo tey ji ñu ngi nii dugg war a dugg maris def géejawaay te démb ñu ngi nekkoon mbuur après ndogu bi non gars yi départ nañ non ndogu ci kii bi la ñuy fekk ñun ci ndogu ci yoon la ñuy fekk duñ ko lijjanti mhm. mais tey comme dama damaa naroon jóge fii dabi caravane bi mhm. damay dem bu ma ndogoo ba pare mhm. ak lu mu guddi guddi bu mais campagne daa mel ni koor gi yàqu ci dara de ah, da koo gën a baaxal da koo gën a baaxal boo ko yëg ah ñu koy <laughs> démb bi ñuy dog ak barki démb yàlla xam na ne day mel ni doo bëgg dog gaaw jot pour nga yeggale li nga doon def ah. ba mujj gi bi bi ndog di jot fekk man maa yoroon micro bi ñu ne ma yéeneel gars yi ne ñu ngi ndog waxal nit ñi ñu ñëw ndog mhm. ñun ci caravane bi dañuy jëndaale mburu mu bari kafe gu bari def ci tarmuus ak yooyu ñu sant Dramé ak ñooñu ñu di leen kii en tout cas daal lépp teranga la sëñ Baara gars yi dañ ko ameel njukkal dafa nekk ci projet bi di ci def lu jéggi dayoo loo xam ne ñëpp nga ko seedeel seen bopp loolu rek moo am solo te xaaru ci dara wala jàpp mu ne xaar na ci dara. loolu ba pare xanaa après mën nañu xam nga ànd ak nit ba pare. Mm-hmm. ku ci nekk nga bàyyi leen xel. Mm-hmm. ngar daa joowoo mbir mi kenn ku nekk ku mu nekkal nga yaakaar ne kii rek la maanaam tim boobu dafa neex daal maa mm-hmm. mujj wàcc ci parce que bii bii ko gën a yor pour man mais tey nag day ratisser large. jërëjëf léegi xot xotaan yi. Mhm. moom la ñuy fàtt. poq yi waaw poq yi yooyu la ñuy fàtt. <laughs> kon ñu ngi leen di jaay imaam jërëjëf imaam. jërëjëf. ayca sukran ñu dem ndogu ji. aywa bisimilah jërëjëf. alaaji euh, Saawa daa <laughs> ah, kon ñu joxaat leen dig daje incha allah alxames bu ah, soobee yàlla. maa ngi ziar maa ngi ziar xam naa alxames moom dinañu gën a teel